ci baabun man xaqaqa tawxid daxala aljanna bi gayri xisaab ci téere kitaabu tawxid dars boobu dafa topp ci dars bi paase woon ci xadisu xusayni ibnu abdurahman xadisu tey bi mooy xadisu abdullahi ibnu abbas buntu dars bi mooy képp ku dëggal tawxiid dugg aljanna te kenn du ko àtte kenn du ko réglé darsu tey bi li ci ab jullit di jëlee mooy day takk moom jullit bi an yuhaddida al muslim sifaatu sab'ina alfan alladina yadxuluna aljanna bi gayri xisaab jullit bi da ciy takk xàmmee ràññee mbooloo moom nga xam ne mën nañ juróom-ñaar fukki junni di dugg aljanna te yàlla du leen àtte mu xàmmee seen melokaan ñooñu lan lañ def ba dugg aljanna yàlla reglewu leen àttewu leen ñaareel mooy an yastantija al muslim أن العذاب بال أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على jullit bi dina jëlee ci dars tey ne def sabab yi du dàqonte ak wakkilu ala Allah wakkilu ak def sabab yi la yàlla sant du dàqonte ñetteel mooy an yastadilla al muslim ala anna allaha huwa shaafi wahdahu jullit bi dina jële ci darsu tey ne yàlla rek mooy faj amul kuy faj ku dul yàlla wa iza maritu fa huwa yashfini di nga dem jël comprimé ngir sabablu dinga naan sunguf ngir sabablu di nga forotewu ngir sabablu waaye yàlla mooy faj tabaraka wa taala xadisu tey muy xadisu abdullah ibnu abbas mu ne xaddasana ibnu abbas an innabiyi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qaal uridat alayya al umamu فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهد فدخل منزله فخاد الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صهبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا wa zakaru asiya fa xaraja alayhim rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa axbaruhu fa qaala hum alladina la yastarquun wala yaktawuun wala yatatayaruun wa ala rabbihim yatawakkaluun fa qaama ukkaasatu ibnu muhsin فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قال رجل آخر ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها أكاشة Ibnu Abbas nee na kan mooy Ibnu Abbas Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muttalib ibnu abbas mi ngi tudd abdullah baayam moo tudd abbas abbas moomu ibnu abdul muttalib moom mooy maamam abdul muttalib ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam luñ bokk abdul muttalib lan la bokk ak abdallah ñoo bokk bàyyi kon ibnu abbas ibnu ammi nabi doomu baay taxu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam moom ibnu abbas doomu baay taxu yonent bi mooy xale bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanaloon fa qaala allahumma faqihu fi ddin wa allimhu ta'wil fa kaana zalika mooy xale bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanaloon ne yàlla yal na nga ko déggaloo diine yow yàlla yàlla nga ko xamal mbir yi li muy tekki taawil li muy firi nee na loolu yonent bi ñaanaloon ko moom xale bi mu daldi tàbbi ci kawam loolu daal di nekk moom Abdullah ibnu Abbas mi ngi faatoo dëkk bu tudd Taif ci atam juróom ñett fukk ak juróom benn Ibnu Abbas bi ñu nettali hadis bi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na benn bis uridat alayya al dañ ma gaaral xeet yi man yonent bi dama taxaw rek ma gis xeet yépp ñu gaaral ma leen sama kanam mu ne fa raaytu nabi wa maahu rox ma gis yonent boo xam ne mi ngi ànd li mu ànd ak mbooloo bariwul lu tàmbalee ñett jëm juróom-ñeent laa ko gis mu àndal ab yonent bu yàlla yónni mu ànd ak ñett jëm juróom-ñeent wala rek yonent yàlla yónni bu mu ñëw ci kaw jamono di woote amul lu ko topp ci mbooloo lu dul ñett ak ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett ba ci juróom ñeent loolu mooy rax raxtu mooy mbooloo mu tàmbalee ñett jëm juróom ñeent mu ne wan nabiyu wa maahu rajulu wa rajulaani ma yéemu lële ma gis beneen yonent boo xam ne li ko topp mooy benn nit wala ñaari nit laa li ëpp ci doomu aadama yi duñu wuyu yàlla wala yonent bu yàlla yónni lu dul benn wala ñaari xanaa dafa mënul woote xanaa li ko yàlla wax daf ko deful ah kay doomu aadama yi ñoo dëgër bopp moo tax yàlla tuddee nit ak ginne ñaar ñu dëgër bopp ñaar ñu wowle mu ne wan nabiyu walaysa maahu ahad maa ngi doon yéemule ma jekki ci gis yonent boo xam ne moom dara topp ko kenn topp ko moom moom kenn nu curlu woote na ba tas amul mbooloo moom kenn xam nga kee moom am na benn am na ñaari nit kee am na ñett ba juróom-ñeent kii moom bés boo ko topp allahu akbar bu doon tey ci jamono bi la bu nit ñi xoolee yonent ba jaag dañ naan ko bi ngay wootee moo baaxul yow mënoo woote yow mënoo jàngale di ko critiquer fekk du ci yonent ba ci nit ñi la mu ne ma jekki-jekki is rufi ali sawaadun azim ma jékki-jékki gis mbooloo mu ñuul kukk kukk kukk ñuulaay bu ñuul kukk fa zanantu annahum ummati mu ne ah ma yaakaar ne ma njort ñii nag sama xeet la ñii moom wax dëgg yàlla ñii moom sama xeet la loolu laa njort fa qiila lii ñu ne ma haza Moussa wa qawmu ñu ne ma kii de yonent yàlla Moussa la ak ay nitam Moussa moom mbooloo mi ko topp dañoo ñuul kukk ndax bari ndax bariwaay fa nazartu fa ida sawadun azim ma xoolaat ma gisaat beneen mbooloo mu ñuul kukk fa qila li hadihi ummatuk ñu ne ma sa xeet a ngi nii nag yow muhammad ñi ñooy sa xeet mu ne waaye ci sama mbooloo moomu ci sama xeet moomu sama nit ñu bari ñooñu wa maahum sabuuna alfan yadxuluuna aljanna bi gayri xisaab wala azab am na ci ñoom juróom-ñaar fukki junni ñoo xam ne dañuy dugg aljanna yàlla du leen atte yàlla du leen buggal dañuy ubbi buntu aljanna rek ñoom ñu dugg direct kenn du leen laaj lu ñu def ak lu ñu wax ak lu ñu jëf ñoom bu ñëwee sax duñu taxaw juróom-ñaar fukki junni lañ yoo xam dañuy dugg aljanna bi gayri xisaab kenn du leen atte wala azab kenn du leen mbugal yonte bi bi mu waxee loolu ba pare dafa jóg summa nahada fa daxala manzilahu yonte bi jóg na jàngale na loolu muy jàngale ba pare mu dëgg dugg biir këram mu bàyyi nit ñi toog la waroon nit ñi bu yéen ki doon jàngale dem na ñu jóg waaye ñoom ñu nekk ci dar si bay wax mu ne fa xaada naasu fi ulaayika nit ñi daal di wuute ñooñu ñooy ñan waaw yonent bi ne am na juróom-ñaar fukki junn yu dugg aljanna yoo xam ne kenn du leen atte kenn du leen regle yonent bi wax na loolu dem nit ñi ñoom des fanaan naan ah ñooñu de nangam ak nangam fa xaada naas nit ñi daal di xuus ci ñooñu wuute ci ku nekk naan ñii la ñoom diw la ñi def lii la nangam nangam mu ne fa qaala baaduhum lenn ci nit ñi toogoon fekke dars bi ñu ne fala am fala allahum allazina sahibu rasul ñu ne ah amaana ñu àndoon ak yonent bi xam naa ñooñu la ñoo ñooy juróom-ñaar fukki junni yu dugg aljanna te yàlla du leen atte wa qaala baaduhum ñeneen ñi ne fala allahum allazina wulidu fi lislaam walam yushriku billahi shay ah, waaye ñu judd ci lislaam la te bokkaale wu ñu yàlla ak dara amaana ñoom ñooy juróom-ñaar fukki junni yi wa ñi ñi wax nañ lu bari daal ci ñooñu ku nekk indi sa xalaat ñoom ñoom diw ñii ñii la ñii ñii la àndoon ak yonent bi la déedéet ñu judd ci lislaam la nga xam ne mosu ñoo bokkaale yàlla ñooñu la fa xaraja alayhim rasul yonent bi daal di leen ñu nekk ci wax ñu ne ko ah ñun de bi nga demee wuute nañ fi ci ñooñu juróom-ñaar fukki junni yooyu dugg aljanna yàlla attewu leen réglé wu leen ñun de wuute nañ ci ñooñu ñooy ñan fa qaala yonent nag léegi mu ngi leen di leeral juróom-ñaar fukki junni yooyu ñooy ñan fa qaala hum allazina laa yastarquun mu ne leen mooy ñi nga xam ne du ñu mocculu dara du leen metti ba ñu dem ci nit ne ko moccal ñu wala yaktawuun du ñu gajju dara du leen metti ba ñu jël weñ tàngal ko di gàjj seen bopp wala yatatayaruun duñu picculu loolu mooy lan mooy jël picc sànni ko ndeyjoor wala càmmoñ wala sow fu mu dem nga ne baax na nga topp yoon boobu uti liggéey walla uti dara ñooñu wa ala rabbihim yatawakkaluun dañuy wàkkirlu ci seen boroom yonent bi yemee fii am na benn sahaaba bu tudd mu daal di jóg ibnu muhsanin fa qaala udu llah an yaj'alani min mu ne yonent ñaanal ma ma ci juróom-ñaar fukki junni yooyu di dugg aljanna ñaanal ma bokk ci fa qaala anta minum yonent bi ne ko yow bokk nga ci allahu akbar kon yonent bi ñaanal na ukkaas ne ko yow da ngay bokk ci juróom-ñaar fukki junni yi dugg aljanna te yàlla du leen at su ma qaama rajulun beneen waay daal di jóg ci mbooloo mi fa qaala moomin mu ne udu allah an yajalani minum ñaanal ma yàlla ma bokk ci ñoom qaala yeneen bi ne ko sabaqaka biha ukaasatu ukaas jiitu na la mbokk yi hadis bi bu ñëwee ci anasiru dars mooy éléments yi ñu ciy jële dana mat juróomi mbir bu njëkk mooy fadilatu ummatu muhammad mooy ngëneelu xeetu muhammad xeetu muhammad yàlla da leen defal ngëneel lu mu defalul kenn benn xeet yàlla tabaraka wa taala gaaral na xeet yi ci kanamu yonent yàlla muhammad mu ne uridatil umamu ala rasul dañu gaaral xeet yi xoolal yonent bi taxaw mbooloo yi di ko romb délégation yi di ko romb yonent yonent yi taxaw di ko romb mu taxaw moom yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne faraa anna ummatahu sallallahu alayhi wa sallam aksarul umam yonent bi gis ne xeetam moo ëpp ci xeet yi moom yonent yàlla Muhammad moo mujjee ñëw waaye moo ëpp ko wuy si tax bu ngeen fàttalikoo ci njàngale mi mu doon jàngale doon na wax tazawaju alwadud alwadud fa inni mukaasirun bikum al umamu yawmal qiyaam takk leen soxna yoo xam ne dangeen na leen bëgg ñu bëgg leen waaye dañuy am doom soxna soo xam ne day am doom ñu nag yonent bi lu tax mu ne ndax man ak yeneen yonent yi dañuy set ko ëpp nit yawmal qiyaam fa inni mukaasirun bikum al umam te yonent bi taxaw na ñu gaaral jaam ñi ci kanamam mbooloo yi romb mu gis ne xeetam moo ëpp ci xeet yi moom yonent bi ndekke li muy mujj mujj mujje yépp moom moo ëpp mbooloo ëllëg yowmal qiyaamati ci biir mbooloom sax wa minhum sab'una alfan yadxuluuna aljanna bi gayri xisaab wala azab ci biir mbooloo yonent bi am na juróom yuy dugg aljanna yàlla du leen atte yàlla du leen buggal lu ñu def yàlla xoolu boo tax yàlla du leen àtte wa zalika baada ma raa qillatu lmustajibina li ambiyaai sabiqin loolu nag ginnaaw ba yonent bi gisee yeneen yonent yi ci mbooloo bariwul yonent boo xam ne ñetti nit yonent boo xam ne ñeenti nit boo xam ne amul benn mit bu ko topp allahu akbar waaye moom yonent mu gis mbooloo mu ñuul kukk ndekke ñooñu ñooy xeetam ñaareel bi mooy xirsu sahaaba radiyallahu anhum alal xayri saxaaba yi dañoo xëroon ci lu baax ñu nag sahaaba yi mënu duñu mën a nekk benn mukk abadan lu ñu jàng jàng jàng islaam lu ñu mokkal mokkal lu ñu këru Qur'an lu ñu mokkal xadiis bu yeboo ñu fanaane naafi la guddi bu yeboo ñu woor ba tas mënuñu tolloog saxaaba yi abadan bokk na ci xéewal yi leen yàlla defal mooy xayru naas xarni génération bi gën ci génération bi mooy génération yonent bi da yonent bi mu àndoon ak saxaaba yi yàlla bind na yonent bi yonent yi testé leen mu gis xol yonent yàlla Muhammad moo gën mu teg ko côté mu testé waat mu gis xolu saxaaba yi moo gën ginnaaw yonent yi àndale nag yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moo tax dégg ci hadis bi yonent bi doon wax ngëneelu abu bakar mu ne wallahi ma wata ma wataat al ard baada al anbiya min abi bakar giñ ci màggaay yàlla kaw suuf si ginaaw yonent yi ku mel ni abu bakar doxu kon yonent bi moo fi gën ñan ñoo ci tegu ñan ñoo ci tegu yonent yi ñan ñoo ci tegu saxaaba yi ñooy deuxième position wala troisième yonent bi mooy bee yonent yi ñoo ci tegu saxaaba yi ñoo ci tegu wallahi maa wataat al ard baada al anbiya xayrun min abi bakar giñ naa ci màggaay yàlla kaw suuf si ginnaaw yonent yi ah gis nga doxul ci kaw suuf ku mel ni abou bakar xirsu sahaaba radiallahu anhum alal xayri sahaaba yi dañoo xëroon ci lu baax asahaba sabaaquuna ilal xayri ñoom dañ daan jiitu ci lu baax su yonent bi waxoon dara lu baax yàlla wàcce ko yonent bi jàngale ko ci saase lañ koy commencé def ci saase fi ñu toog dañ koy njëkkante waqad tabahasu fi sifaati haula sabina alfan gis nga moo tax bi la yonent bi jàngalee ba pare au lieu yonent bi dem na au a dars bi tas ñoom dañoo toog di discuter naan waaw juróom-ñaar fukki ñooñu waaye ngeen defal na ñooñu ñan la xam nga lu tax dañoo bëgg a xam ñooñu ñooy ñan pour ñoom ñu bokk ci bu fekkoon ne liñ jàng yëpp jëfe nañ ko allahu akbar kon leen ñu jege ñu leen mais maal asaf dañoo jàng jàng bani ar waaye lu néew lañ ciy jëfe ci liñ jàng parce que njàng yi moo dul benn ñii dañ doon jàng ngir yàlla ñii di jàng ngir diingat ak di werante ji ak ak ak ak ak ak ila axiri yi tabaxasu fi sifaati haulaai sabin sahaaba yi jóg nañ di wër juróom-ñaar fukki ñii seeni melokaan seeni jëf yu tax ñuy dugg aljanna te yàlla du leen atte yàlla du leen réglé lu tax rajaan an yakunu minum ndax ñoom dañoo yaakaar ne bu ñu xamee ñii lan lañ def rek suba insha allah ñu tàmbali koo def jàngeen yonent bi saa sam toog na ba ci ngi ñëw benn waay ñëw ñu toogaat ba ci yàgg yonent bi mu ne nitu aljanna ngi ñëw même personne ñëw ñu toogaat troisième jour yonent bi ne nitu aljanna mi ngi ñëw benn waa ji moo ñëw bi mu ñibbee këram rek benn saab du ko faa fekk ne ko dama bëgg fanaan dama am sama kër problème daal ma bëgg isolé sama waa kër ma ñëw nekk ak yow fi tuuti sa kër ndax di ma ma héberger mu ne ko waaw oh. ndeke waa ji xam ngeen lu muy xool si kii lan la def ba nekk nitu aljanna mu ñëw ne gis na waa ji day tëdd naa naafila tuuti jàpp dem naafila jàng alxuraan tëdd gisul daal dafa yaakaaroon ne kii bu jullee gee rek day càmbali day julli ba fajar wala jàng alxuraan ba fajar mu gis daal li mu gis daal nitu nitu ordinaire yi daal li ñuy def rek loolu la gis kii kii lan la war a def ba dugg àjjana mu nekk fa ñetti fan troisième jour bi mu ne waa ji man daal wax dëgg yàlla nga baal ma demee dafa am lu ma doon xool si fii ma doon xool si mu ne yow nooy jaamoo yàlla guddi la lu tax loolu mais dafa dañu toog ñetti yoon yonent bi naan nitu aljanna ngi ñëw ngay yegsi mu leer ñu ne yow la te man ñëw naa fii gis naa daal yow da ngay naa fi la tuuti jàng Quraan tuuti julli tuuti loolu daal yow daal li ngay def daal bëriwul loolu daal jaaxal ma yow lan nga war a def rek ba dugg aljanna mu ne ko sama xol bi dencalu ma ci nit ñàkk ñàkk sama xol bi dencalu ma ci nit lu bon li ngeen wax bi sama xol bii dencaluma ci nit lu ñaaw allah ndeke loolu moo ko dugal aljanna gis nga waa aljanna bu ñuy dugg aljanna yàlla day raxas xol yi wa nazaana ma fi sudurihim min xillin yàlla da koy raxas parce que aljanna doo fa dugg ba pare gis sa mbokk jullit di ko mere di ko dencal benn en ci sa xol ah? moo tax jullit mooy koo xam ne xolam du ci denc en doo ci denc lool ñu naan da ngay dem ba jeex ci lu mu mën doon mais di réservé wu ah la hawla wala quwwata illa billah ñetteel ci li ñuy jël ci dars ukaz hadisu ibnu abbas mooy sifaatu lazina yadxuluna aljanna bi gayri xisaab wala azab melokaanu gaa yi nga xam ne dañoo dugg aljanna ëllëg yàlla di leen yàlla du leen atte yàlla du leen réglé yàlla du leen mbugal seen melokaan axbara nabi sallallahu alayhi wa bi anna sab'ina alfan min ummati sa yadxuluna aljanna bi gayri xisaab wala azab liman zal yonent bi xabar na xabaar na xamle jàngale ne xeetam dina am juróom-ñaar fukk junni yu ci dugg aljanna kenn du leen atte kenn du leen réglé lu tax li taxqiqihimu tawhid ndax dañoo dëggal kennal yàlla dañoo wéetal yàlla seen xel seen xol bokkaale wu yàlla dara dendale wu yàlla kenn wala lenn dañoo dëggal tawxid wa anna lahum sifatun hiya mu ne dañoo am ay melokaan melokaan yooyu bi ci njëkk mooy laa yastarquun du ñu dara du leen métti ba ñu gàddu loolu foofu ñëw ci kenn ne ko moccal ñu tey waxuma nit ñi dañuy mocclu waaye dañuy xërëm di def ay bokkaale léeg nga gis kenn bëñam di metti lex bi gomfale rek nga gis ci baat bi ñetti couleur u wëñ bu weer bu xonk tegali bu ñuul lu mu fayut mais bokkaale léeg mu nekk ci loxo bi nga gis ko fa léeg mu nekk ci tànk bi nga gis ko fa wala nga gis fa dara luñ takk wala mu nekk lam pourquoi waxuma sam mocc bu baax bi mais bu xaraam bi ñun la ñuy def tey te ñii bokk na ci tax ñu dugg àjjana mooy du ñu mocculu laa yatlubuuna man yurqiihim li quwati tawakkulihim ala allah du ñu dem ci nit naan ko moccal ma ndax la ndax ni ñu wàkkirloo ci yàlla te pourtant ñu mocc la dagan na nit ñëw mocc la dagan na waaye ñoom dañoo am dama dañoo am tawakkulu ala dañoo jox seen bopp yàlla loolu moo tax ñuy dugg aljannati kenn du leen atte ëllëg wa li izzati nufusihim ala tazalluli li gayrillah dañoo ëppal seen bopp di toraxlul seen bopp ci kanam wala ci jëmm judul yàlla wa hada la yunafi annahum yarquuna anfusahum aw yuraqihim gayruhum li gayri talabihim mu ne ñaar moo nekk ñoom mun nañoo mocc seen bopp boobu dagan na mun nañu wax nit tamit mu mocc leen dagan na waaye ñoom duñ dem di ko def ci kenn ñu mocc seen bopp moo leen gënal keneen di leen mocc fu leen di métti ñoom ñooy mocc seen bopp waaye duñ dem kenn di leen mocc loolu mooy seen première melokaan bu tax ñu dugg aljanna te kenn du leen atte kenn du leen bëggal ñaareel bi wala na duñu gajju xam ngeen gajju ah gajju mooy lan mooy ñaas lenn fenn metti la neew yi nga dem jël mën nga ko def nga dem jël weñ amaana nga tàngal ko daal di ko ci ko ciy ñaas nee na ñoom duñ def loolu laa yasaluna gayruhum an yakwuhum binnaari tawakkulan ala duñ dem di wax nit tàngalal paaka wala tàngalal weñ tegal ma ko ci sama place bi lu tax tawakkulan alallah ndax dañoo jox seen bopp yàlla duñ ko def mbokk yi te ñaar yooyu yëpp mooy mocculu ak gajju mu ne jaa'izaani ñoom ñaar dañoo dagan walakin tarkuhuma afdal bàyyi ko nag moo gën wa akmalu fi tahqiqi tawxid bàyyi ko moo gën ndax lan mooy mottali dëgg dëgg kenn kennal yàlla tabaraka wa taala ñetteel seen melokaan wala yatatayaruun du ñu picculu xam ngeen picc mooy li nit ñi di def tey am na ci dëkk bi ñuy jaay ay picc dangay gis koo xam ne dafay xëy joxe fukki dërëm ñu jox ko benn picc mu taxaw li mu mbokk bi waxoon keroog musiba bu ma naar a dal sama doom sama jabar sama sama sama di wax di wax lu tolloog heure daal di koy tifli ci picc mi picc mi naaw wala boo bëggee tukki penku nga war a dem nga ni xaaral ma xool ndax sama yoon bi baax na nga jël daan ne su fu fu ma war a dem rek yoon bu baax bi na picc mi naaw jaar nga sànni bu jaaree ndeyjoor nga ni ah fii moo baax wala damay uti liggéey xaar ma sànni picc bi yoon bu mu jaar ma jaar foofu loolu ab jullit du ko def loolu bokkaale la yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na laa yatasaamuuna bi tuyuur du ñu gaaflu ci ay picc wala bi suhuur du ñu gaaflu ci ay weer du ñu gaaflu ci ay bis du ñu gaaflu ci ay waxtu fii am na bis yoo xam ne kenn du sangu est que xam ngeen loolu am na weer yoo xam ne kenn du ci tukki yii tey bay kare la yii tey du ñu sangu doo dégg mu ngi ne du ñu lekk de tey àllarba la kenn du lekk abadan man de déggaguma ko yéen dégg ngeen te àllarba la kenn du sangu di ko dégg te àllarba la kenn di ko dégg te àllarba la doo dégg mukk te àllarba la kenn du naan ataay kenn du añ kenn du reer kenn du kon kay xam nga ne gaaflu googu wax la rek beneen bi mooy bis bi ngay gaaflu bis boobu musiba xew na ci bépp bis rek musiba xew na ci yàlla moo ko wax ba yàlla di arak waa aad wala waa samuut la fa amma aad fa uhliku wa amma samuut fa uhliku ah ñaari bi taaf ya سمعت سمعت سمعت قولكم وأما ثمود sax ñi nañ muraaja buñ tëdd tey fa uliku bi riihin sarsan aatiya saxara alayhim saba layaalin wa samaniyata ayam mbugal moomu yàlla nee na def naa ko ci waa dëkk ba juróom-ñaari guddi ak lan ak juróom-ñetti bis saba layaalin wa samaniyati ayyaam kon bis yëpp a ci biir ba pare nit ñi di ko gaaw moo tax borom xam-xam yi fa amal fi kulli yawmin ma chita fa inna al ayaamu kulluha wa wala tadur wala lu la neex ci bis bu la neex bis yi du ñu jëriñ du ñu lore yàlla mooy borom bis yi bàyyi xëy naan tey ii tey la jàngam tey la nii tey lii wóorul te tey lii moom abadan te lan moo wóorul bis yëpp yem la lan mooy tey la lan tey moo leen wax ne tey la lan moo leen ko wax dafa am beneen couleur bu wuteeg démb jant bi dafa xëy génne nii ngeen xam tey la mardi lan moo leen wan ne tey la mardi kenn ku nekk ci yéen toog fii na ma ko wax lan mooy wane ne tey mooy mardi da ngeen a jàng ci calendrier bi rek ñu bind mardi lundi jeudi ngeen ne tey la loo leen ma lu ko wuteeg démb jant bi fii la xëyoon génnee fii la xëy guddi jot na guddee ngi nii jant bi dem na ana changement bi asamaan dafa ñëw ci suuf ñu ne teel a maare suuf si dafa yëg ci kaw amul changement amul benn changement amul soppeeku kon bés yi noonu la bés yi amul benn bu ci loraate lii lore ci yàlla lay bàyyee ko lii jëriñ ci yàlla lay bàyyee ko ab jullit loolu lay gëm waaye gëm yii alarba bii samedi bii dimanche kenn du ci takk jabar gis nga weer wi ñu nekk kenn du ci takk jabar am ngeen weer bi nu mu tudd baraxlu baraxlu kenn du ci takk sëy fi mu nekk kañ nga gëj dégg mariage oto bu la romb wii wii wii wii Sénégal dañoo gëm ne baraxlu kenn du ci takk jabar musiba la weer yi mënuñu dara bis yi mënuñu dara yàlla mooy jëriñe yàlla mooy lore fekk génn wu ñooyu suñu mbokk yi duñ def mbokk yi weer yi munuñu dara yonent bi yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na ab tayratu sirkun jël picc di ko sànni nee na loolu bokkaale yàlla la nekk nii am na ñuy sànni ay picc am na ci biir kër yi am na xar yoo xam ne kenn du leen rey xar bu weex tàll nga dañu ne xarum sarax la dañuy bàyyi doon xar bi ba mu xëy dee kan lañ ko sarax jinne jinne yi lañ ko jox kenn du ko laal noonu laa amee ginaar noonu la amee fas noonu la amee noonu la amee lu nekk loolu bokkaale ku def loolu rek bee boo nga xam ne génn nga ci lislaam jullit day moytu bokkaale mu ne ñeenteelu seen melokaan bu leen dugal aljanna te yàlla du leen atte du leen mbugal wa ala rabbihim yatawakkaluun ñooñu dañoo wàkkirlu ci seen borom te gis nga baatu tawakkul yàlla daf ko soññaate wa ala allahi falyatawakkalu in kuntum muminin bu fekkee ne gëm ngeen yàlla waakiru leen ci yàlla wa ala allahi in kuntum muminin su fekkee li ngeen di wax dëgg la jox leen seen bopp yàlla yenent bi nee na law annakum tawakkaltum ala allahi xaqa tawakkulihi la yarzuqukum kama yarzuqu tayr taxdu ximaasan wa taruhu bitaana su ngeen gëmoon yàlla dëgg-dëgg gëm yàlla ngeen wax wàkkul ci moom yàlla dina leen wërsëgal comme ni mu wërsëgalee picc yi ba ngeen gis picc yi di grève naan dañoo yokk bi ba ngeen gis picc yi di grève naan courant bi ngeen gis picc yi di maas naan mburu mi dafa cher dugub amul ndox mi courant bi day coupé abadan picc yi dañuy génn yonent bi nee na taxdu ximaasan wa bi bitaana dañuy génn xiif ba la ñëwaat seen biir fees ba ñu indil seen doom lu mu lekk parce que dañoo gëm yàlla ñun nag sunu dëgg-dëgg gëm yàlla moo des lu nekk rek foog ñu utal ko lay ah xaaral ma wuti liggéey bu ma liggéey lu ma tedd xaaral ma def lii xaaral ma wax lii waaw amaana nga def dara amoo nga ni ni ma ko waxee la ni ma ko defee la law gis nga baatu law dañ koy tere ci lislaam law law allahu akbar wa ala rabbihim yatawakkaluun ay yaatamiduuna ala allahi wahdahu dañoo sukkandiku ci yàlla moom rek fii jalbil manafii ci indi ci ñoddil seen boppu njëriñ wa dafil madaar ak lu leen di lor ci yàlla la ñuy sukkandiku yàlla dàqal leen lu leen di lor maa fiilil asbaab al masrua loolu nag buñ koy def dañuy ànd ak def sabab yi da ngay xëy sa dem jàkka julli fajar génn ñëw sol say daal dem uti loo def loolu mooy def sabab bi nga dem uti loo liggéey boo demee ngir yàlla doo ñëwaat mukk te yàlla wërsëgu la loo indi ci kër gi moo tax gis nga saxaaba yi bu kenn si ñoom doon génn soxna si day ànd ak yow ba ci bunt kër gi ne la ragalal yàlla ci ñun ittaqillaha fiina ragalal yàlla ci ñun ndax ñun mën nañoo muñ xiif waaye mënuñoo muñ safara kon looy indi ci kër gi rek na dagan bul dem rek ba àdduna jàppale rek nga indilu lu araam ñun est ce que noonu lañ mel ñun boo demoon fii léegi gis benn billet 10 000 da nga naan ni gauche ndeyjoor gisoo kenn nga teg sa tànk gaa yi romb nga for dugal sa poos daal ne dépense bi tey yàlla rek dana ko macha allah waaw ah, yàlla xéewalal na ma xéewal <laughs> loolu yàlla mënul ko xéewalal gis nga allahu akbar te xoolal saaba yi ne bul indi ci kër gi lu dul lu dagan lu dagan rek bu la jamono wàcc ba nga indi ci kër gi lu araam lu dagan rek moo tax il faut ñu raw ñu ñoom mbokk yi ñeenteel ci lu ñuy jële ci dars bi mooy alxadis atawakkalu ma al a al asbaab waq daf tawakkul day ànd ak nga def sabab yi benn waaye ñëw na indi gëleemam Madine ñëw nuyu yonent bi saasam yonent bi ne ko a gëléem gi nga waroon mu ne bàyyi naa ko biir Madina muy tambaamaal yonent bi ne ko lu tax mu ne dama wakkirlu ci yàlla mu ne ko déedéet a aqilha summa tawakkal yeew ko ba pare nga wakkirlu yeew ko tawakkirlu noonu la ñuy tawakkule mooy da def li nga war a def ba pare nga jox ko yàlla nag waaye xëy tëdd dina la yow doo jóg uti liggéey oh, man yàlla wa min daabbatin fil yàlla ma nee fu ma nekk dina ma jox ma lekk déet da ngay jóg dem uti ko yàlla jox la gis nga picc yi sax yonent bi ne tagdu dañuy xëy génn kon yow tamit xëyal génn kon sooy wàkkilu da ngay def sabab yi alhadis yadullu ala anna almuhaqiqina liltawxid la yubaasiruna al asbab wa innama almuradu annahum yatrukuna badu alumur almakruha kal iktiwaai walistirqaai maa xaajatihim ilayhima ilayha li kamali tawakkulihim ala allahi mu ne hadis bi day wane ne ñi nga xam ne dañoo dëggal tawxid ñoom dañuy jël sabab yi fekk bañ koy jël ñoom mën nañ koo bàyyi waaye dañuy gis ne dëgg-dëgg def ko moo gën bàyyi moo tax ñoom ñu daan dem jël mbir yooyu ñu daal di bàyyi lan bàyyi gajju bàyyi mocculu te mënoon nañ koo def mënoon nañoo dem ci seen bopp seen benn mbokk ñu ne ko yow mocc moccal ñu fi waay wala gajjal ñu fi waay waaye gis nga dañ koo bàyyi ngir la ndax seen tawxiid bu mat seen tawxiid bu dëgër mu ne wa amma ma ada zalika min wujuhi tadawi allati la kirahiyata fiha mu ne bu fekkee yeneen sabab yi la yeneen mbir yi nga xam ne mën naa nekk comme faju ci loo xamante ne kenn sibu ko ah comme nit ñëw mocc boppam wala mu fajoo lem wala mu fajoo habatu sawda ah ka an yarqi l nafsahu aw yasfi bil asal aw il habatu sawda wa nahwiha awil uduwiya alxadisa fa laysa tarkuhu mashruan nee na bu fekkee ne fajoo yii la yii ñu wax nii nee na yii wala nga fajoo faj yi nga xam ne nii dafa ñëw ci jamono garab yeeg pikiir yeeg yu demee noonu samp la butel nee na yooyu moom yonente bi saa salaam def ko santaane na ko jullit def ndax hadis moo ci ñëw tadaawaw fa inna allaha taala lam yunazzil daan illa anzala lahu shifaan alimahu man alima wa jahilahu man jahil yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam nee na hadis boobu ahmad moo ko solo na ngeen faju yéen jaamu yàlla yi yàlla wàccewul benn feebar lu dul wàcce na garab gu koy faj mu ne yàlla wàccewul benn feebar lu na garab gu koy faj ku ko xam-xam na ko ku ko réere réer na kon am na garab am na feebar yoo xam ne tey ci jamono nit ñi xamuñu lu koy faj léeg-léeg sax nga dégg ñu ne ku mu dal da ngay dee déedéet yàlla wàcce na lu koy faj de nit ñi ñoo gëstuwul rek ba yegg ci lu tax ndax nit ñi yàlla tabaaraka wa taala bi mu leen bindee dafa def ne kenn ku nekk sa feebar garab yi nga dëkkal ñoo lay faj mais maal asaf ñun dañoo bàyyi garab yi faj di dem di garab yeneen fekk kenn ku nekk ci ñun fa nga dëkk gox bi nga dëkk suuf sa nga dëkk garab ya fa nekk yooyu ñoo lay faj ah xoolal tey ñun dañoo bàyyi loolu tubaab yi jóge fa la ñëw jël suñu garab yi sungu seek reen yeeg doom yi defar ko ay comprimé ñëw dañ ko jox ñuy naan parce que ñun nanguwuñu gëstu ku nekk rek yonent bi nee na feebar bu la dal fajul ndax bépp feebar bu yàlla wàcce yàlla wàcceel na ko garab bu koy faj mu ne xam na ko ku xam mu réere ko ku ko réere mbokk yi juróomeel ci li ñuy jële ci dars bi mooy xusnul xulqu rasul yonent bi saa sallam jikkoom bu rafet bu mu am lu tax ukaas radiallahu anhu sàkku na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an yadau llaha bi an yajcalahu min alsabiina alf allazina yadxuluuna aljanna bi gayri xisaab wala azab fa qaala rasul saa sallam anta minhum ukaas sàkku na ci yonent bi ne ko ñaanal ma yàlla ma bokk ci juróom-ñaar fukki junni yooñu di dugg aljanna te yàlla du leen atte yàlla du leen réglé mu ne ko yow ci nga bokk ukaas bi ko yonent bi waxee loolu dafa dem xeex xeex bu tudd hurubu ridda ñu daal di koy rey te ku ñu rey ci xare lan mooy sa atte da ngaa moo tax ukaas gis ngeen ñaani yonent bi saa salaam bi ko ne <laughs> yonent bi yàlla da ka daan won ay mbir yonent bi toog na ne bi nitu safaraa ngi ñëw comme sànq ni mu waxee woon nitu aljanna benn waay yegg si tiit ndax waa ji ni mu mel ci ni muy góorgóorloo ni muy jaamoo yàlla te yonent bi ne nitu safara la ñu toogaat yonent bi ne nitu safaraa ngi ñëw ñépp tiit waa ji ñëwaat moom benn nit ñu dem xare ñu jam waa ji jam-jam bi metti mu daal di jël jaasi ji eggali boppam gis ngeen yonent bi saas la wax na dëgg dafa dem jam-jam bi métti mun a résister mettit bi mu daal di eggali boppam mu xaru gis loolu yonent bi ne waxoon naa leen ni nitu sawara la kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jikko ju baax jikko ju am mu rafet moo tax mu ñaan ukaas ñaan ko ne ko ñaanal ma yàlla ma bokk ci ñoom mu ne ko yow ci nga bokk wa hada ilmun min alaami nubi nubuwa li wokk ci xam-xam boo xam na yonent yàlla muhammad xam na ko su ma saalahu rajulun axar beneen waay daal di koy ñaan an yad'u llaha bi an yakunu bi an yakuna min sabiina alf ma ma bokk ci juróom-ñaar fukki junni yooyu fa qaala sabaqaka biha ukaasatu yonent bi ne ko ukaas jiitu na la mbokk yi nee na yonent loo xam ne mun naa nekk yonent bi da koy ñaanal yàlla loolu mu mën a nekk ci moom saa yu yonent bi saa salaam gisee nit kii lii muy laaj wala lii muy ñaan lu attanu ko yonent bi sallallahu alayhi gis ngeen Abu Zar laaj na yonent bi saa salaam ndomba tànk yonent bi na ko déedéet yow mënoo ko lii musiba la yow te yow da am da néew doole amoo amoo kattan boo yënoo nguur tànk yonent Abu Zar déedéet yow attanoo pal kon lii moo doon darsu tawxid bi wa fi hadihi al maqalat dalalatun ala xusni xulqi rasul salallahu alayhi wa sallam xaysu ajaaba bi kalimatin tayib waafiya lil maqsud nee na lii day wane ne ay dalil la yu wane ne yonent bi saa sallam ku rafet jikko la ndax laaj nañ ko mu daal di tontu tontu bu teey bu mat bi nga xamante ne waa ji nga xam ne moom moo doon ñaan yonent bi saa salaam di ko yonent bi ñaanal dafa correspondre mooy lan ñaanal ma yàlla ma bokk ci juróom-ñaar fukki junne yu dugg aljanna yonent bi ne ko ci nga bokk mu dem xuru burdi dañu daal di koy rey mu sahid daal di dugg aljanna te xam ngeen ne ku sahid day dugg aljanna mubaasara kenn du ko àtte kenn du ko rek la aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaykum wa